alaykum askan bi ma ngi len di wa di len bégee di len worma di len jox ciir néna len cadeau askan bi la andal si sen télé bi ngén xamante moy mooy TV tay ma ñëwone essence télé bu mag fa seenee jàkkaarloo bi nga xamné dañuy dawal super ak ñi nga xamante client yi nga xamante dañuy pass di dem ndax Macky Sall ba euh, nga xamante mo jité réew mi ndax su waxul kenn du wax mom moy waxon na né nañ nit ñi séparé wu ndax pass bi ñu yokk ko di jël touti nit mais légui ñi ngi ci charger ta téwul na né pass bi fu mu nekkoon ba légui jugo fi ndax fikki dërëm kenn déggatu ko fi ma fas yéene nag xuus ñëw si essence télé bi ma laaj su ñi nga xamante ne ñooy ñooy ñoo yore super yi ak clients yi nga xamante ne dañuy yéeg di dem sëñ bi ziyaare naa la ñu lay delloo ziar tur bi Elimane Ndiaye waaw Elimane tey dañoo ñëwoon essence télé bu mag pour ah, aras yi nga xamante ne dañ koy yokk si car rapide yeeg super yeeg njaga njaay yi nga xamante ne tey dañoo duggoon si coronavirus bi léegi ah, président suñu réew waxoon na ni nañu jël tuuti nombre bi nga xamante ne tey di ñu laalante mais loolu yëpp dañ na fi tax araf bi ñu tax tegoon yokk paas yi fukki dërëm amatul léegi 100 francs jëm kaw te coow li da see bëri loolu loo si xamoon sax laat xam nga Sénégal dafa dañoo tàmm benn habitude boo xam ni benn euh, bagage bu ñëwee ci réew mi dañ ciy profito pour di sonal doomu aadama yi mais normalement ci yoon nit ñi dañu war a respecter li nga xam ni moom la règlement bi joxe bu ko defee ñun ci suñu wàllu bopp dina normal ñoom ñu normal parce que actuellement ñom ñoom nekkuñu en norme parce que chaque jour ñoo ngi xalaat askan bi ta askan bi nekkuñu à l'aise car rapide mom amul pacifique deram pacifique deram ñu ñokoy koy toléré rek di ko yem amul pacifique deram quoi amon na pacifique dërëm da nga naan bi coronavirus bi duggee ngeen ko fi dindi non non avant bobu sax ñun buñ nexé ñu yàpp fu waay wàcc sans mais des fois dañuy dawal comparaison quoi di yàpp fiki deram quoi des fois dañuy dawal comparaison di yàpp fiki deram ma ma ngi lay wa alaykoum salam mam tay dama ñëwoon essence tali ma fekk la fi tour bi Serigne Diouf lañ may wax. Serigne Diouf Serigne maam Serigne Diouf tey dañoo ñëwoon si essence télé bu mag bi fekk la fi ñuy jëlee oto tey ñuy wax na ne paas yi nga xamante ne dañ koy yokk fi ki dërëm amatul 100 francs jëm kaw 200 est ce que loolu arrangé na ñi nga xamante tey jii dañuy paas di dem na xam yor ngeen ko wala déet. arrangé wu caaf na ndax man mii ngay waxal fi ne damay dox sax tey jii. da ngay dox waaw ndax ñàkk paas kon bu ñu ko yokkee day métti moom ko ci yoon six charge la ñuy def te bu ba pare yokk nañu yi kon xam nga loolu arrangé wul client yi amul benn client bu ma dañu koy dagg-daggee bu dem ba caare ñu ne yëmbal 200 benn baraag 200 boo jëmee Kër Massar ba ngaa ko fay lu bëgg si mat 500 francs si charge bi duñ ko nangu ñun nekk fii alkaati yi dañuy indi waa police Pikine dañuy indi fii ay éléments yu jigéen ñu ñëw taxaw fii si buntu car rapide bi fii nii yaa ngi dégg bu ki oto bi feesee ñu bàyyi oto bi dem mais surnombre moom amul su surnombre amu ci car rapide yi et puis boobu ngay wax noonu ah loolu jamono nawet day am caaray ah bu même bu dul sax ay coronavirus jamono nawet yoonu caaray bi moo naqari ndax tàgg yi baaxuñu booy yi dañuy sonn si liggéey bi dañuy sonn ci yoon wi. xam nga moo tax vraiment pour booy yi di fayeku 200 yenn saa yi day jaadu ndax dangay gis yoon bi day naqari trop apprenti yi pour ñu dem caaray wala ñu dem yëmbal day day jafe du ñu sax yëpp yëmbal moo tax léegi pour ñu arranger client yi. bo boo jëmee ñu xamne bu ñu yebee ba caare 100 francs yebaat yëmbal 100 francs day nekk 200 ñu yeb nga fi à la fois 200 francs yóbbu nga nga dem yo moo tax ñu yo mo wara a yeb 200 francs wa waaw léegi lépp rek si kàddu askan bi rek yeen yi nga xamante ay da ngeen yoré ay car rapide di lang wala ngeen dawal tay ji nan ngeen dundé ci kaw tali bi metti metti nah, ak metti dafa metti torop barke Serigne Touba des fois client yi dañuy té dañuy saga dañuy xass dañuy wax lu leen neex mais ñun moom moy lool comme man rek sumay gën sama yaay lim may wax ku la mag jox ko cër waaw koo tollool tamit jox ko cër man noonu laay doxee ba keroog may waaj heure bu may génn maire bi daf may yàpp noonu laay doxee bëri na trop alkaati yi sonal nañu waaw des fois mooy loolu fii moom métti na metti na trop ndax ki ngaay tamit yenn saa yi dañu dul nangoo dégg ndax ñun yenn saa yi dañu leen di wax ni sax yéen taxaw ngeen ne bu oto ñëwee ñu arrangé ngeen wax apprenti bi mu yëpp cent franc kase ñu ñu yëg si mais da ngay gis gisa bu yow mi boo bañee cent franc bi da ngay bu apprenti taxawee wax 200 da ngay gis client bu daw ñëw ne 200 ngay fay par force doo si mën dara xam nga ma nga wax kon moom yeen benn part bi ci client yi nga benn part bi ci apprenti yi nga apprenti moom bu ñu taxawee ne 200 nga da ngay gis client bu ñëw forcé même ñun bu ñu baaree buntu oto bi ne apprenti bi doo yëpp 200 client bi mooy ñëw client yi ñooy ñëw seen bopp forcé ñëw yéeg waaw loolu moom am na fii moom ci station bi. tey jii chauffeur bi nga xam mooy jël benn doomu aadama di ko fayoo ko 1000 francs ba dakaar kooku daa gàtt xel respecté wul loi bi mu ngi violé loi bi parce que nit su fekkee ne dañ la teg ci bërëb ne la da dëkk bi métti na méttiwaay boo xam ne ku nekk yaa ngi tal sa bopp feebar baa ngi ci dëkk bi nit ñaa ngi moytante paas yi ci wàllu boppam ñu yokk ko ba pare di sonal doomu aadama yi loolu jaaduwul teguñu ko ci yoon waaw parce que loolu lépp da tegg yoon la. ba ñu wàññi ko teg ko ci yoon ba ñu ko defal moo gën ci ñun. ndax néew ji doole lañu dañuy xëy di dàq suñu doole ji man mi fi mu ne fi ma jëman laa fa jotuma ko maa dox li ma la kon xam nga loolu kon bu ñu ko yokkee day métti mhm. waaw nañu ñu ci ñoom état teg ci yoon di leen contrôler ñu def ko ci yoon te ba ñoo def coono yu métti yi kooku ngënul métti na ci jaboot yi kooku daal laa wax ni moom ma xalaat bu ñu jàppalee dañ leen gërëm sant waaw. nuyu naa leen ne leen ne maa fas yéenee kaas li nga xamante ne tey jii dañoo yokk paas bi fukki dërëm amatul te jafe-jafe metti na laaj dugg naa ne essence tali bu mag laaj naa ñi nga xamante ne dañuy ñibbi ñii di yéeg si oto yi yaa laaj naa ñi nga xamante ne tey jii ñooy lang si oto yi ku si nekk rek joxe nga sa xalaat nee naa leen dinaa ñëwaat si beneen facette bu nga xamante ne si kàddu askan bi fas yéenee ànd ak yéen si askan bi rek lépp rek si biir dëkk bi rek nay rafet ñaf ba beneen yoon